bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin mbokk yi li tënk la bu jëm ci euh, li'tikaaf jaamu yàlla gu am solo goo xam ne ni mi ngi dëgmal waxtoom muy fukki fan yi mujj ci weeru ramadan wi nga xam ne taamu nañ ko ci lool mu jaamu yàlla goo xam ne nag mi ngi bokk ci naafila yiw yi maanaam yi nga xam ne duñu farata waaye yiw bare nga ci woo xam ne tax nañu xamem ko lool ci li lislaam euh, yonent yàlla Muhammad wax nañ ne sallallahu alayhi wa sallam musu ko bàyyi di li'tikaaf fukki fan yi mujj ba ne ko yàlla moomee waa këram it daan ko def Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu mi jëw ñëwit noonu la meloon ak lixtikaaf ci fukki fan yi mucc ci Ramadan kon mu jaamu yàlla gu mag goo xam ne ñu baax ñëpp ñoo ko fonkoon kon am na solo lool eh, bokk na ci eh, jublu gi day day sellal bakkan maanaam di di fóot xol ak nur nuru malaaka lay ci labal say waxtu yëpp ci jaamu yàlla ak it tënk sa bakkan ba yenn bànneex yi nga xañ ko ko mu jaamu yàlla goo xam ne jàkka lañ koy defee te it ànd ak koor day woor yëpp jàkka ji koy defee nag bu mu doon jàkka joo xam ne euh, jàkka yi kër la nga xam ne ki ne ci biir kër la ne ñu tëj bunt boo waa kër gi rek ñoo fay jullee kon jàkka ji jiñ ko sañoo defee mooy jàkka joo xam ne bu julli jotee ku bëgg a julli mën nañu julli si fa maanaam bu nee kër it day sës ci mbedd mi am bunt boo xam ne saa bu julli ku bëgg a julli mën julli si jàkka ju mel noonu mën nañ koo defee euh, bu ko defee ki koy def nag Euh, liñ gën a taamu mooy na fa jandu soyee bis bi mu war a tàmbali ci misaal ku bëgg a lextikaaf fukki fan yi mujj ci yi di ñëw incha allahu taala gaaw euh, bisu gaaw bi nga xam ne mooy doon ñaar fukki fan ak benn ajjuma ca ngoon bala dog da dugg ci jàkk ja nga xam ne bu dog di jot jàkk ji lay fekk ajjuma ca ngoon nga ne guddi gaaw gi nga fay njëkk fanaan ba nag ba ngay àggal gën jaa néew bis lay doon guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg liñ gën a taamu nag mooy mu doon fukki fan li nga xam ne bëgguñ mu ëpp ko mooy weer sib nañ leextikaaf bu ëpp weer sib nañ leextikaaf bu yées fukki fan kon liñ gën a taamu daal mooy fukki fan nga xam ne moom xasee tudd rek mën na leextikaaf mooy mu doon ay bis mu doon mu doon mu doon bis la bëgg wax vingt quatre heures nga xam ne eh, jant bi faral la sooyee nga fanaan fa yenn fa ba jant sowaat loolu ku ko def rek eh, mat na mat na leextikaaf waaye nag sopp nañ mu mat fukki fan gën ñaa néew kon rawatina fukki fan yi mujj yi nga xam ne moo nekk ci Ramadan moom taamu nañ ci lintikaaf lool lool lool am na sax ñuy wax ne guddi gu njëkk gi euh, doonte da nga bu la fajar fekkee rek bu baax maanaam euh, fanaan fu moo gën waaye bu tardé woon it ngir ay ngant boo fajar fekk ko fay dutee dana baax su ko defee kon day dugg ci jàkka ji di woor bëccëg yi guddi yi nag mu ci jaamu yàlla ak bëccëg yëpp it nag waaye bëccëg dañ koy worom taxoo jàkk ak woor la bu ko defee nag liñ bëgg ku koy def kuy leextikaaf nag mooy zikkër ak julli ak jàng alxuraan kon xeetu sikkër yëpp mu julli ci yonent bi istixfaar laa ilaaha illallaah yooyu xeetu sikkër yëpp mën na koy def ak di julli nag farata ak naafila ci waxtu yi nga xam ne terewuñ koy naafila waaw ndax naafila bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg ndax julli mooy jaamu yàlla gën a màgg jaamu yàlla yi ginnaaw ñaari baati sere yi kon bari lool lu muy naafila rawatina ci guddi yi di bëccëg yi waxtu yi nga xam ne terewuñ naafila mu di ko naafila boole ko di jàng alxuraan loolu lañ bëgg kuy laatikaaf mu di ko def waaye dañuy wax nag sib nañ sax muy def leneen sib nañ kuy laatikaaf di yër ay téere xam-xam di jàng xam-xam baa mu di ko jàngale wala moom di bind alxuraan wala yu mel noonu yooyu dañ koy sib ndax liñ jublu ci laatikaaf mooy fóot xol te eh, loolu nit ki di jonjoog moom ci di ko deeleeg moom ci lay amee loolu moo tax laatikaaf jaamu yàlla yiñ ci yiñ ci santaane mooy yooyu kon des fa nekk di bind ay kaamil wala yu mel noonu deesu fa nekk di yër téere xam di ubbi ay masala di ko lijjanti waaye daal zikkar ci xeeti zikkar yëpp te jàngal xaana ci jiitu euh, julli julli ak nag jéggulu yàlla ak yu noonu loolu la lañ fay nekk ba diir bi mat bëgg nañ nag euh, nit ki bu koy def mu yóbbaale lu ko doy masalan tey koo xam ne am na bëgg naa la tikaaf ñett ba ñett fan wala fukki fan li muy dundee na ko yóbbaale ci barab ba nga xam du wo muy génn euh, dañuy bañ mu euh, ma am ko ba noppi nag bàyyi ko ci kër gi di génn di dem ndax génn gi jàkka ji ngant rek moo ko war a waral bu fekkee jàkka ji amul wanag bu amee aajo doomu aadama sañ naa génn dem faj aajo juy dellusiwaat bu fekkee amul lekk gu nekk bu waxtu lekk jotee sañ naa génn wuti lekk ñëwaat waaye fu gën a jege nag fa la yem moo tax yóbbaale li muy jëfandikoo ak bu dee barab boo xam ne wan ak jege na koy mu yem foofa na yem foofa loolu mooy tax li atikaaf biir su ko defee nag eh, ci jàkka ji nekk di jaamu yàlla bu dee biir jàkka ji nag sopp nañ mu nekk ci mujj ga soow foo xam ne ay nit ñu muy waxtaan lañ fa nekk su julli jotee mën naa mu ñëw ci mbooloo mi ànd ak ñoom julli bu noppee delluwaat foofa buñ doon julli ay néew yëpp sax moom dañuy taamu rek mu des ci ji nekk ci ay jaamu yàlla am lañ gën a bi te tey ko su dogee ci bëccëg bi te tay ko li i'tikaaf bi day yàqu li ñuy tuddee mu xaddamaatul jimmaa kaf ak soxnaam wala mel noon bu ko defee donte guddi bëccëg guddi guddi la i'tikaaf bi day yàqu kon du dog du fi du fi ànd ak soxnaam du fi naan am ñool xeeti bakkaar yu mag yëpp yooyu bu ko defee day def loolu bokk na ci li yàq i'tikaaf su ko defee nag bu fa nekk di jaamu yàlla eh, bis bi muy génn dañuy bëgg mu eh, jant bi sooyee ko fa ba dog jot bu dogee na ci lay door a génn lu dul day i'tikaaf fukki fan yu yi nga xam ne mu mujj ci eh, ramadan moom dañuy bëgg buñ buñ ne weer na guddi googu nga xam ne mooy laylatul ahit mu mu fanaan ko moom fanaanee jaamu yàlla gam doon def bu xëyee waaja fa dem julli ci it bu jógee ci jullikaay bi na door a ñibbi këram daal tënk la ci eh, jaamu yàlla gu am solo gi yox lextikaaf te waxtoom jege te mu bokk ci yi eh, sëriñ bi fonkoon lool lenn ci njabootam fonk lool yàlla ñu yàlla defal tawféex te ñu bàyyi ko xel ñu bàyyi xel it ne ku koy def bu fekkee ne euh, ajjuma dalaa war euh, demal ci jumaa nga defee ko fa ndax boo ko defee ci barab boo xam ne duñ fa jullee ajjuma su ajjuma ñëwee faaw da ngay jën dem julli ji te soo génnee i'tikaaf bi yàqu kon soxna soo xam ne ajjuma waru ko mën na ko def jàkka joo xam ne su julli ajjuma waaye bu dee koo xam ne ajjuma da ko war moom euh, te bis yi muy i'tikaaf ajjuma nekk ci faaw dee dem ci jumaa defee ko fa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.